Mm-hmm. mais sama combat ak Tapha dafa am lu ma dal xam nga man sama combat ak Tapha Tine yéen ñu bari ñu ngi daan boo ñaar dafa wàññi poids sama combat ak Tapha Tine gars yi mun ngeen xoolaat image ngeen ne boo ñaar dafa wàññi poids mm-hmm. mais nag comme combat bu jeex na mi ngi ci ginnaaw man bëgguma defaat ci yoolu parce que làmb Tapha Tine daf ma war a mën a daan ci làmb mm-hmm. mën na ma daan ci làmb mu daan avertissement la ma daane sax mais wun na ma mën a daan ci làmb jël bu leer ci làmb comme parce que ah, moom ci làmb te ay lañ ci làmb waaye combat dama ci dem préparer son Europe ma feebar fa ñu def ma opération quatre fissures ba combat bu desee vingt cinq jours naa bu ima bu ñuy paree sax bu ima paree mun naa la woon vidéo yi ak photo yi ak sama opération lépp moom laa ñëwee combat ba dama nekk di ko préparer yéen ñëpp ngeen wax ne boo ñaar dafa wàññi poids ci combat wàññi moo poids dama feebar mm-hmm. mais combat bi comme toxal nañ ko benn yoon ñaari yoon c'est la première fois wax ci nag di wax ni waxuma ko pour dara dama ko wax rek pour waxtaan moo dugg foofu. waxoo pour yàqu jël bi moo tax ma <laughs> boo xam ne war na ma daan wala daan keneen ku dul mag ci làmb. mais ndax Boy Niang sa contre Tafatine ndax Boy Niang mi doon gis physiquement mais mais mais ma ñëw père et puis dafa na ma mën a daan wala mm. na mm-hmm. mais waxtaan na rek pour taal làmb ma may leer comme na ma am ma am ma am opération boobu jógee France ñëw moom jógee France ñëw nag sama papa sama yaay sama mag sama jabar ak sama mag bi nekkoon France muy paas maa ngi koy nuyu ñoom ñoo xamoon li ma def sama opération ak sama feebar ma vérifié fépp parce que dama bëgg bëree combat bi mu jóge ma xool leen su combat bi su maa ngi nuyu Pape Thialis na ko trois fois ñu koy pousse mhm. mu mett combat bi def <coughs> deux ans maa ngi tubaab États-Unis la mu fekk waaw ma ñëw pour bëree ko mais lu ma ci aagaawu tamit dafa jaaru ci làmb parce que man maa ko engagé pour bëre ko te bëre naa ko ak ful ak fayda yàlla def ko mu am ndam ci man ba santee ko yàlla ba ma génnee sama mag bi maa ngi koy nuyu paas mi mu wax ba jooy la parce que dama war a génne ay preuve dama war a génne ay vidéo dama war a génne sama sama carnet opération lépp ma ne ko mukk parce que làmb la daf ma daan daan na ma dañuy dem xool da nga bëgg ni wax bu dul woon opération non non mënoon naa bañ a opéré sax mu foofu laa njëkkee il faut fi ma njëkkee tamit ngeen xam ko mooy dama nangu ne daan na ma te war na ma daan ci làmb te mënoon naa nekk wér péng mu daan ma ci làmb mais daan boobu mu la waxtaan dugg foofu père Babacar ma leeral. voilà donc c' est pas waaw Fadam xaaral Babacar Babacar. c' est pas parce que du question préparation sportive quoi. waaw ah, boobu nag desu ba maanaam pare naa. Mhm. mais dese naa pare. dese nga pare parce que laa gën a pare. mais bu ma la contre Lac mhm. bëri naa Lac de Guiers daan na ma ci après recours mais pare woon na. pare woon mais bu ma la nee contre Tapha te da tu de lutter. looy tontu waaw contre ah. Tapha Tine. nangu nga lool. non non ma bëre parce que boo xoolee contre Tapha Tine boo saanee combat yi. ñëpp dañu doon Boy Niang benn loxo lay xeexee. boo xoolee dina sama ko loxo bi gaañu parce que tàmmul di dem. Oh. te yóbbu naa ko lu bari Tapha Tine dóor naa ko tuus naa sama loxo lu bari. dama gaañu ci combat bi tamit. Mhm. mais bu ko xamee bëgguma moom mu xam ne dama gaañu ci combat bi. maa ngi koy camoufler ci combat bi di ko bërewaale. Mhm. te mënoon naa génn sama loxo ñu ne nii yow booy dafa gaañ ba ma pare CNG ñoo ma jël yóbbu ma ci sapeur bi nekk lu may tàppale yooyu yóbbu ma ci sapeur sapeur jël ma dugal ma yóbbu ma yaa ngi hmm. loo xamante ni parce que ci biir làmb ji ma dare sama ñaari baaraam ñu ngi ci biir làmb ji ma dare bëri waare parce que làmb noonu la man nag d'accordu ma ci bëreeg mbër saleté victoire dëgg hmm. parce que fii kuñ ci daan dan la wala daan parce que ñun ay làmb lañu ñoon di antenne am ay mbokk di war a mën a daanante suñu biir waaye buñ toogee nii làmb jeex loolu nekk suñu ginnaaw ñu waxtaane rek il faut ñu leeral loolu kon xam nga ne yow bi ñuy bëreeg Balla Balla bu ko nekkoon mu ne du bëreeg yow ndax tey da ci ñaari grand combat waaw mais xam nga boobu fekk na maa Balla taxaw ah boobu fekk na maa Balla taxaw léegi man ba ma jógee tafaatin daanu moom Balla yàlla dafa def mu bëri tamit boo mu daan ma ji daan ko waaw boo xoolee loolu moo gën a taxaw taxawal a